Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakaatu mbokki julli ñi mbokki groupe whatsapp soppe Seydina Alassane Salam ma ngi leen di nuyu baax di leen fasiyene yéene ñaan gu bayiko ko ci suñu serigne bi Salam mu di ñaan gi ngeen di gis ci affiche bi mu tambalé bismillahir rahmanir rahim sha ha kha mata wa hudan jamial lakka midaadan fatama shadi nii la ko serigne bi dan bindé yow mi koy xol fexel nga bindé ko ni takk ko wala nga mokkal ko ndax sëriñ bi nee na képp koo xam takk nga ko mu ne ci yow wala nga di ko wax nee na suñu boom dana la muccal ci accident nee na it képp koo xam te ni yaa ngi koy wax wala nga takk ko di nga mucc ci feebar polarisé ak lii olof tuddee feebar njëddeer tubaab bi di ko tuddee malaise nee na suñu boom dana la ci muccal li ñu leeral ci kàddu gi ginnaaw gi nag mooy eh, ñaan gi ngeen gi sëriñ bi daan na ko jox kilifa yu bari ñu koy bindal seeni njaboot daana defi ku gis nga xam mu xam ne jang nga dalay wax ne la bind ko te rek tax nga ko ba kep ko gis nga faham mokol ko di wax wala mu bind ko tak ko ngir ñëpp mucc ni xam ne ne serigne Asan salamit yermane yalla la won ci kaw suuf rahmatan la woon tamit lil alamin ci addu bi yep lim daan def yep yalla ko sant mu daan ko def daan dimbali jami ci xet xam-xam yi ko yalla su daan wax mu koy ci jami na ci li insha allah rabbi lepp lo xamanteni te nako fi tamit njariñ jullit ñëpp dañ ko tassare ba ñëpp jot ci di ñaan kep ku jot euh, euh, kaddu yi wala mbind mi ko ñaanal sayyidina asan alaihi wasallam mom yok leeram tas ci barke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sen mbok adama salam assalamu alaikum wa taala wa barakaatu mbokk ñi mbok